ndaje mi comme ni nga ko waxee comité directeur ci njiital responsable moral sëñ Youssou Diop euh, ñu woote tey ndaje moo xam ne dañoo bëgg xool comité de pilotage bi fan la toll ci wàllu liggéey yi nga xam ne moo jëm ci wàccaayu ziar bi ndax lu wuteeg euh, comité directeur bi liggéey bi mu liggéeyoon ci joxe ay orientation ak euh, assigné commité de pilotage bi mu taxaw commission bu ci nekk ci benn yi tey comité directeur bi ci boppam mu bugg évaluation bi tey ñu defee ko ci kanamam loolu it lim ci lim koy jural mooy euh, lépp loo xam ne euh, jot nañ ko liggéey fi mu toll ñu xam ko la ca desit ñu xam ko la sa la amee lu mat a joyanti it ñu mën ko joyante ci waxtu yi nga xam ne euh, mën nañoo may bala ñoo yegg ci bés bi niñ ko bëggee ñu tëralee ko noonu li ci ëpp solo nag mooy liggéey yi moom kenn ku ci nekk maytul boppam noflaay ndax kenn buggul sa moroom liggéey liggéeyam ba pare yow bu amee tardement mu tardé ci sa bopp loolu ñu ci sant suñu borom bu baax leneen li ci desit mooy gis nañ ne euh, liggéey yi ci ëpp tàmbali na waaye suñu digganteek bés bi des na ñeent ba juróomi fan yoo xam ne dafa mel ni dañoo def réquisition ci wàllu secteur d'activité yëpp bàyyiwuñu benn euh, doyok siyaar bi nag moo tax waxtu wu nekk dañuy daje di ko xool ndax loo ci négliger rek mën naa mën naa mën naa am conséquence boo xam ne du conséquence bu ñu bëgg ci wàllu ci wàllu ziar bi Euh, comité de pilotage bi it renforcé waat nañu euh, membre supervision bi loolu it liñ ci jublu mooy ñu gën a mën a saytu liggéey bi ndax ñu ñañ ko dénkoon seen yéene ak seen i effort yëpp ñu ngi koy def waaye dafa mel ni comité directeur bëgg na yëf gën gaaw moo tax dafa am yenn membre ci comité directeur bi ñu copte waat ci supervision comité de pilotage bi ngir ñu gën a mën a tiim yëf yi leen lu ci nekk ñu ànd ak moom di ko buux ba ba ñu yegg ci bés bi leen bañ a am gàllankoor.